li des ci feebaru cancer yàlla bu mu am ci sa dund bu mu am ci sa njaboot ci barke Seydina Mohamed Tall xam naa ne bu ma demee dinañ ma téye foofu ndax wàccu rek moo ma sonal du ma lekk du ma def dara wàccu rek moo tax ma néew kartan te xam naa ne tey jii bu ma demee dinañ ma téye te ci leeray tax ñu téye ma may tàllal jullit yàlla yu tàllalaat sama loxo rek képp koo xam ne jot nga vidéo bii nga partagé ko ba sa mbokki jullit yi man cee jot ngeen dimbale ma rek te yàlla tax ma faju te Référence TV, la chaîne de l'innovation.